ñoom dañ fee ñëwoon tey xam naa nag euh, daje bi ñoom ñoo ko sàkk woon bi ma bàyyi naam Fall wooye bàyyi naam moom mbokk la ci ñun doomi soxna mbeerum suñu Fall la waaye bàyyam tamit ci Baye Fall gi la bokk euh, ne ma dañoo bëgg a yow pour waxtaan ak yow ndax liñ xam daal mooy lu bëri ci mbooloo mi ñëw yéen lañ àndal waaye lii di xew xaw na leen seen daal suñ sañoon nga def benn déclaration xamal ni ñi fi ngeen nekk daal bu ko defee ñoom dañ lay gën a wutalu lay ma ne ko loolu moom muñ ci benn problème ñun li ñu bañ rek mooy ngeen giñ ñu li fi xew lépp ne ñun la waaw baatu jégalu moom duñ ko def ndax ñu kenn bay jégalu waaye nag amaa suñ jëmi position ni ñu ko yàgg di defee mën na koo defee waat noonu waaw boo ñëwee ñu toog ñu waxtaan mën naa xamal ñëpp ndigal li Ousmane ko yàgg joxe ci Touba yàgg ko wax waaw loolu daal moom moo fa xewoon biñ ñëwee it ànd nañoo ak sëñ Ousseynou Fall doomi sëñ Modou Sa Fall ak sëñ Assane Fall ñoom it dëgg-dëgg ay mili du ma ne ay militant passif lañ mais jàppaleen daal fe ñu ñu fa amu fa waaw li ngeen gis yëpp am na ay gars yu ne ci ginnaaw di manipuler rek waaw mais déclaration bi it leer na dama fàttali rek xamal ne kuy sàmm war mooy dëkk bi ñun nga ci jàppale te ñun foofu lañ mas a nekk waaw te ñuy wu ci dëkk bi képp ko leen ci jàpp du bokk Pastef ñun suñu yëpp Mbàkke lañ koy defee waaw loolu daal la ne woon naa leen ko defal contrat bi pour ngeen xamee ko noonu waaw biñ ñëwee it fekk <clears throat> ñu doon waaj ñëw foofu ci kii bi avant ñu def proposition bi fekk na ma ak biram ak yooyu waaw fekk na waxtaan bi yëpp xam naa moom dina du gën leen defal leeral